xet gu neex doon wàll wu am solo ci dundu doomu aadama rawatina jigéen ku waxet gu neex nag tudd li nga xam ni mooy parfum ak cuuraay mu doon luy sawarloo jeeg yu nekk seen néegu sëy ak jamonoy seddaay bi ñu nekk. cuuraay moom xam dafa neex kenn ku nekk rek xam nga da ngay ñëw sa suwaaw bopp kenn ki ku góor mën na ñëw tànn bi nga xamante ni moom la jigéen ñi sax di di bëgg. célibataire yi nag moom. mën naa ne duñ si jënd lu bari góor ñi jigéen ñi daal ñoo ëpp lu ñuy jënd. xat yi bokk ci jeeg yi nga xam ni bégal seen jëkkër donc moo leen soxal. cuuraay bi moom comme ni nga ko waxee jéeg bu nekk da nga war a fonk sa bopp di xeeñ lu neex parce que góor bëggul jigéen bu salte bëggul jigéen boo xamante ne du am xet bu neex cuuraay nag dafa baax surtout boo tëddee boo ba set li ci li nga xamante ne mooy yoon daal mooy que. nga jël sa gowe simple bi nii daal di ubbi say rideau daal di cuuraay xet bi génn dégagé wu complètement léegi su ko defee yaay xool nag sa cuuraay bi nga choisir. li mën a dundal xolu jeeg yi ak njëgëmaar yi kenn doxu ci ku ñi nga xam ni ñoo leen koy jaay bokk na ci ñooñu kii di jogoy def ba mu baax. cuuraay bu ne moom am na tur quoi noonu lañ leen di génne daanale quoi cuuraay bu ne moom boo laajtee bii naka la tudd buñ la waxee tur bi da ngay ree kontaan xam nga noonu lañ leen di ki daanale quoi. muy góobe saaf poobar wala nàq bi ñii di jaaykatu cuuraay yi yëg nañu ni ku ci nekk am nga bu la gënal terewul. am na buñ ci gën taamu mooy bi ñu duppee keccax am na gooy saaf bi buñ lay jaay gooy saaf bi am na nakk am na keccax am na digije yooyu yëpp am na ci cuuraay yi boo itam boo cee cuuraay am na ñu leen tooñee cuuraay célibataire la bi cuuraay marié la waaw buñ ne kontaan ci kon xaaral ma jëndi cuuraay marié ndax ma am jëkkër affaire yooyu noonu wala ma am soxna affaire yooyu daal lépp dañ ko ci waaw am pagay bëri na am na góor yu jëndi am na góor yoo xam ne seen soxna ñoo leen yónni cuuraay sax ñu ñëw jëndi si. cuuraay bokk ci xaritu jéeg yi ci seen biir néegu sëy ñi koy jaay nag xamal ñu ni gannaaw ñooñu dinañ ràññee ci ñi koy faral di fàggu ñi amagul borom kër ndax ci seen xalaat lu neex ñépp koy bëgg. sama jëkkër même buñ ko cuuraayee si biti itam loolu dérangé wu ma man jeeg biir laa dama toog sama biir néegu sëy di sey te yalla rek tax du jigéen buy tambambaalu ci biti momay may xañ yi may defal sama jëkkër wala togu yu bax yi makoy def parce que dama ko bëgg ku bëgg itam ñow ma xajal la rek